salaamaaleykum euh, mbokk internet yi donc yi ñi di seetaan euh, Baol Time donc maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp euh, di jox kenn ku ci nekk wàccuwaayam donc man la Ndiaw Macodou Ndiaye donc nekk le coordonnateur national adjoint du parti Euh, de Dëgg Moo Wóor le coordonnateur national adjoint des jeunes du corps du du, du parti Dëgg Moo Wóor en même temps nekk le le coordonnateur du mouvement ànd dooleel dëgg voilà euh, di jàppale ki nga xamante ne mooy Pape Modou Fall donc nekk le président du parti Dëgg Moo Wóor en même temps nekk le directeur de l'emploi voilà auprès du ministre euh, Dame Diop le ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de et de l'artisanat Euh, d'abord damay wax lan mooy euh, concept bi concept bi lu muy signifier d'abord euh, waxtaan ak sa gox comme ni ko olof waxee rek mooy waxtaan ak sa waa gox mooy wàcc ci terrain bi donc en tant que directeur de l'emploi en tant que un un un politique donc wàcc ci terrain bi gaare otoom dugg ci dëkk bi mas jànkonte ak askan bi donc laaj leen li nga xamante ne moom mooy euh, seen euh, li leen di metti mu man ko xam bon li nga xamante ne mën nañ ko ci saafara ñu saafara ko ci daar daar li nga xamante ne aussi mënuñu ko saafara ñu euh, ñu def ko projet donc loolu mooy waxtaan ak sa waa gox parce que jafe na ci kilifa koo xamante ne kilifa nga ci wàllu politique nga wàcc ci ci terrain bi donc di di kii ak sa waa askan donc loolu ñu gis ko la pour la première fois ci ki nga xamante ne mooy le directeur de l' emploi du Pape Modou Fall jafe-jafe yi nga xamante ne moom moo gën a moom moo gën a moom moo gën a jàmp ñu gën ko remarqué ci li nga xamante ne moom mooy suñu concept boobu d' après les enquêtes parce que concept bi daanaka enquête la donc bi ñu xoolee gis nañ ci ndaw ñi ndaw ñi ñoom ñoo nekk ci kanam daanaka muy li nga xamante ne moom la jiite moom muy direction de l'emploi donc ndaw ñi moom bon euh, employabilité lañ wax donc ñoom nee nañ employabilité des jeunes dafa des donc formation bi aussi dafa des donc wax nañ ñu ko te loolu aussi moom yaakaar naa ne dégg na ko te jël dina ci jël ay mesures yu baax a baax tax na aussi fekkoon na aussi mu teg loo xamante ne nii moo di euh, euh, benn projet bu ñuy wax SICOM si comme mooy direction de l'emploi boo xamante ne daanaka léegi dañ ko décentraliser dañ koy décentraliser indi ko indi ko Diourbel euh, mu am fi benn benn benn point boo xamante ne moom mooy direction de l'emploi au lieu ngay déplacé wu di dem Dakar léegi donc euh, fii lañ ko fii lañ ko njëkk a def ak fi nga xamante ne moo di Kaolack donc je pense que ne loolu benn initiative boo xamante ne waa Diourbel ñoo ko moom te jot nañu xam ko aussi donc euh, remarqué def nañu remarqué aussi si ndaw ñi que ne communication bi jàllul. communication bi jàll ci lan ci wàllum ut liggéey mi wàllum ut liggéey mi boo koy def donc man je pense que ni Pape Modou Fall moom <coughs> ku ko xamul pardon ku ko xamul je pense dégg na ko ci ay attam at yi nga xamante ne moom lay moom lay moom lay moom lay teg bi mu commencé politique ba léegi mu nekk en en 2011 donc je pense que ne euh, Pape Modou Fall nit la koo xamante ne nii Euh, boroom xam-xam la cadre la d'abord parce que un politicien d'abord ñu ngi lay xaar ci nga bëgg sa dëkk ba pare nga nekk benn cadre boo xamante ne je pense lu ñu la jox euh, di nga ci di nga ci mën a génn te moom nit la koo xamante ne je pense loo ko lu ko loo ko jox dina ci dina ci mën a génn askan bi dina ci mën a gis seen bopp parce que euh, nit la koo xamante ne d'abord bëgg na dëkk bi donc am na ay ambition ci dëkk bi donc Euh, nekkal fi askan bi askan bi tax koo jóg euh, mu mu mu am ci ay mu am ci ay ambition yu baree baree baree baree bari ci dëkk bi euh, damay ànd ak moom xam ci lu baree baree baree bari moom bi muy bi muy bi muy nekk fii nii bi muy investir ci dëkk bi je pense que kenn investir gu fi je pense que c'était en mille 2007 la ubbi fi nga li nga xamante ne mooy Moubarak Lénine centre donc Moubarak Lénine centre donc ubbi fi yeneen ak yeneen yoo xamante ne bon ay détail la donc euh, ci ci ci ci loo xamante ne ci ay ci doonagul dara donc benn simple dire benn simple professeur de l'université donc def loo xamante ne ni euh, delloo dëkkam loolu noonu donc je pense que nii Euh, kooku bu ko njaareem jàppalee bu ko jeunesse bi jàppalee surtout euh, dina dina àgg fi nga xamante ne bëgg na fa àgg ci Jurbel dina yóbbu Jurbel foo xamante ne nii peut-être euh, xaaruñu ko fa woon donc loolu moom am naa ci certitude voilà. appel bi bi nga xamante ne moom laay lancé mooy lan mooy surtout ci si jeunesse bi quoi suma mbokki jeunes yi laay wax bon. en tant que qu'étudiant donc man euh, je me dis que je suis un leader un leader boo xamante ne damay yëngu ci wàllum euh, mouvement estudiantine yi nekk nekk président parce que je vous rappelle que ne man maay le président de l'amicale des étudiants de Diourbel à l'université Alioune Diop de Bambey bon di yëngu ci wàllum politique bi am noo xamante ne ni ndaw ñi dañ ko gisee politique man je pense que ni politique c'est c'est une chose boo xamante ne dafa dafa dafa baax ci dëkk il faudra ñun jeunesse bi ñu ñu ñu ñu ñu jéem a def politique mais politique de développement mais pas ay politique euh, boo xamante ne ni dafa salte voilà parce que damay gis bon euh, benn jeune ànd ak benn leader beneen leader bi lu mu def baaxut mu saaga wala mu sànnee xeer beneen leader bi lu mu def baaxut mu sànnee xeer wala mu saaga non non man gisew ma noonu politique man je pense ne je pense que ne ki nga xamante ne mooy le maire Malick Fall wala ki nga xamante ne mooy le DG du CROUS euh, Moustapha Guèye wala keneen ak keneen bu defee lu baax man en tant que euh, coordonnateur euh, bi nga xamante ne man maay féete ci wàllum Pape Modou Fall damaa war a apprécier ba pare encourager ko mu gën a continuer ci effort boobu noonu mais pas man may ne ah. kii de li muy def baaxul dafa waroon a def dafa non man non non noonu pour critiquer je suis pas d' damay lancer d' abord appel ci suma mbokki jeunesse bi ñu ñu conscient xam ne Jurbel ñun la d' abord Jurbel ñun la d' abord mais pas bon je pense que ni politique yi fi nekk nii sax mën naa ne seen wàllu wey na donc après ñun ñooy jël relais bi mais pour est ce que bu ñu jëlee relais bi dañu fiy nekk di saagante non noo non gisewu ma noonu politique dañu war a développer suñu dëkk bi def politique de développement quoi man noonu laa ko gisee pour man fu ma manti nekk man noonu laa mel quoi comme ni ko sa émission bi waxee défi je suis un homme de défi fu ma manti nekk muy Bambey ba ma fa ñëwee nekk président d'amicale ku fa dem tey di nga xam ne instant bi nii changement am na foofu au niveau de yi ku fa dem tey di nga xam ne bon am na lu fa nekkoon loo xamante ne nii def nañ ko fa tey man maa ko fa def may ànd ak grand ba léegi je suis constant depuis 2011 maa ngi ànd ak moom aussi dama mas a constant ci ci wàllu woowu te kenn mësuma dégg ci lu ñàkk fayda kenn mësuma dégg ci loo xamante ne nii bon euh, dafa ñaaw li may gis mooy euh, politique yi politiciens yi fi nekk yépp dama dama dama am ak dama am ak ñoom jàmm bon ku def lu baax ma apprécier jeunes yi fi nekk aussi nekk ay politiciens dama am ak ñoom jàmm bon bu ñu defee lu baax ma apprécier donc je pense que ni dañu war a jug pour Diourbel pour benn politicien non non man du ma gëm politicien man conviction laay gëm conviction politique laay gëm donc conviction nag bu ma àndee ak grand ba léegi su ma gisoon beneen conviction boo xamante ne indi na ko ànduma ci damay damay dama naan ko grand ñett li ànduma ci donc conviction politique moom ngay ngay ngay demee man nag dama am conviction politique moom moo tax may def politique mais pas damay def politique non no non ay politique falaa-falaa yi non man dama gëm sama bopp te dama am ambition ci Diourbel donc c'est ça euh, damay lancer sama mbokki jeunes yi ñu def beneen politique mais autrement voilà beneen politique mais autrement loolu laay lancer jeunes yi aussi di di euh, euh, wax suma suma leader muy suma mentor Pape Modou Fall di ko wax ne man je toujours derrière lui maa ngi mu ànd ak moom comme ni ma àndee woon ak moom ba léegi donc te dinaa def lépp Euh, pour moom mu benn appel que créé ah, maa ngi am naa benn mouvement bi nga xamante ne euh, am na lu mu gàtt gàtt plus de cent cinquante jeunes yoo xamante ne déjà adhéré nañ ci mouvement bi euh, jug rek pour jàppale Pape du Fall ci gest yi nga xamante ne moom lay def ci dëkk bi donc bëgg bi nga xamante ne moom la bëgg ci dëkk bi ñu jàppale ko ci donc pour euh, Diourbel am benn aboutissement boo xamante ne vraiment ñun jeunesse bi dinañ ci dinañ ci gis suñu bopp suñu suñu yaay aussi dinañ ci gis seen bopp Guelwaar nga gis ci sa sa bopp. jëf euh, Ndiaw euh, jërëjëf euh, yéen ñi nga xamante ni internautes yi ak téléspectateur Baol TV ñu dem topp seen premier numéro le défi tey ñu daal loon fii vraiment njaw ma koddu Ndiaye nekk un jeune responsable politique derrière le directeur de l'emploi Pape Modou Fall nii lay demee saa su ne di leen jox dox daje ci benn seen biir dikk ak beneen invité jër ngeen jëf.